c'est celui qui a, qui est. Celui qui n'a pas, n'est pas. Celui qui donne, ordonne et celui à qui on donne se subordonne. waaw nit moom lay set ak li tilim ci mom ci xol bi lay nek. kon sa way léegi ay kuréel ko dese quoi Togal rek. <laughs> non booy oui ma del sol ci chaîne yi gëld di def ci pain yi di jël ci xalé yi. suñu jaay Ousseynou mom lañ fi andi won. Hmm. mais nak bi yoon dafa xaw a sonn de docteur. Wallahi wallahi sa Ousseynou. sama Ousseynou sama mag man. wallaahi luy. déet déet déet déet soxna si gëm dara te leeru la wóorut weddi dara te gëstuwoo ko wóorul yow guddeel nga reer bi nara yàq soirée bi mais booy Moustapha kañ nga mel nii am sa tuuti weccet dem seddal ci sa xol en tant que lan moo ci nekk yaay sa doom ñu soppeeku na de ndax seetlu nga ko kooku xanaa du Moustapha waaw Moustapha la seetlu woo Moustapha gulu sa mburéy bii soxna ku ñu wax Cheikh Moussa Fofana ci moom laa. <laughs> donc léegi xorom ab sëriñ ni muy sant Fofana. sa doom ji gàcce gi ma teg tey dootul ñaar. lii moom du ko dëkkaale ci kër gi daf maa mën a déggal def li ma neex wala mu génn sama kër. waar waa nii leen dangeen xam ne pas-pas ak dëggu képp la laaj. il faut revoir lii jëmul kër. kurus gi qu'est-ce que ça veut Moustapha man sa bàyyi la ah fii sama kër la ah. li ma fi beug moy am toi là tu vas devoir choisir entre ton faux marabout illusionniste de sëñ Fofana xawma lan ak man. Fofana bu joxewul won dara kenn du ko top. Ah, lan lay joxe kay mo jar a ndax dëgg la wala du deug. Ta boko ko jàppee te bàyyi dana la yóbbu ci Yalla ba nga ag ci Yalla. Ko ag ci Yalla na xam sa borom Ko ag ci Yalla janoog sa borom. loola nag la nit war a gëstu mooy lii nga def. <laughs> est-ce que ah loolu de nouvelle bu neex la. Mustafa yàlla yàlla la Mustafa yàlla yàlla la